Mougou maa ngi lay ziar. waa maa nga lay maa ngi lay fay jiili. waaw di la jox sa yéegu waaye di la ziar ziar bu wér. waaw di nuyu waa Wassare Lamb. Mougou nga gis komba Cheikh Super Jamono ak moori Cargo li ci xew mën naa ni sa ñaari doom ñoo doon bëri waaye gën a jege gën a yey ban lam nga ciy wax ci combat waaw mais li ma si expliqué mooy. maa ngi gërëm laay mi nga xam moo encadré Mori ak booy toog fi yëpp champion yi toog fi yëpp parce que tey man maa xew la quoi maa ngi maa ngi gënte booy ñëw fi quoi mais li ma si expliqué mooy booy il faut ñu xool nan la ñuy dafay parce que la mu def jour boobu si buntu këram ndogal nag moo ñëw mais ji nga nit day moytu parce que la mu def si buntu këram mënoon na gaañ beneen xale te boobaa problème lay am parce que yor béjjin di jam sa bopp xale yu wër la ngay jam sa bopp loolu du yëfu nit booy il faut ñu yeewu lamb sport la dañu war a civiliser parce que ñun dañuy xeex xeexal lamb kon booy bu ñu defee affaire agressive yoo xamante ni suba nit ña tubaab yi tubaab yi ñuul yaa ngi fii contre lamb bu bëgg dee boo waxee ñu naan lamb làmb dof la ba pare booy di def ay yëfu dof yow boo si nekkee au moins sax ñu naan kii si lamb la nekk duñ la jox cër kon booy il faut ñu nekk nit maa ngi koy masulu nag. ma ngi koy mas lu baax booy il faut ñu bàyyi ñuy def yor ay arme yor ay béjjin di jam bay jamaate sa bopp boo jamoon tey xale bi la wër foofu xale yi dee lu ñuy def nañu nekk nit nañu ànd ak discipline sport la foo la tubaab yi la ñuy ëpp xaalis foofu lañ leen di fay si sport lu ñu def yëfu dof yi ay 500 millions lañ leen di fay te yow fayu ñu leen dara ba pare nga siy gaañ sa bopp di si gaañ ay xale na booy nekk nit nañu civilisé tuuti moom nag dañ koy ñaanal yàlla mu tane. mais yàlla moo dogal victoire bi nii la ñëwee booy bi weesu na ko ñun ñu ngi xool keneen guy gi la ñuy xool guy gi si boppam lañuy xool booy bi dépassé na ko dépassé na ko. non est-ce que Mori fi mu toll nii toll na fu muy jotee guy gi moori defagul dara ci làmb loo xamante ne père. yàlla xam na ni de picc mi si euh, picc si suuf xel maa ngi sa kaw hmm. xam nga picc mi si suuf xel maa ngi si kaw. Mody actuellement nii si kaw lay xool mais xoolatul chef du département. si kaw lay xool waaye père tamit dangay xool li nga xamante ne mooy avancé làmb Mody tey bu toogoon tey euh, moom ci boppam mu ne guy gi laa soxla guy gi dina gis ni kii respecté wu ma parce que yor na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi cee écurie bi. waaw kon na ñooñu ñëw mais UHCP Cheikh Super jamono wax dëgg yàlla Mody dépassé na ko xanaa mu liggéeyaat pour dab ko. victoire du tuuti. victoire du tuuti xëy na noo ko dal si buntu kër gi bu ñëwoon si làmb ji day gën a ñaaw la yàllaa ko suutoral est-ce que du ay xabtal moo ko teg boppam moo ko teg boppam moo xabtal boppam ba jëm boppam nañu nañu def yëfu nit làmb la nañu civilisé na booy civilisé jox nit ñi seen cër jox seen course yi cër respecte nit ñi parce que li mu gaañ boppam metti nañu trop trop trop trop trop parce que damay xalaat ne rek bu fa jamoon benn booy tey la ko dal noonu bu daloon benn booy ba day am booy ni ñuy nekk nit làmb la nañuy bàyyi ñuy def làmb la après yàgg adversaire bi si biir géew bi la mais tubaab yaa ngi ni événement yi ay ñaata lañu si fay ay cinq cent million ay trois cent millions deux cent cinquante millions da ngay di discipline bi ñuy ànd bay ñëw bay yëg si ring bi du ñu def tubaab amul amul xarfa xuufa amul suul gàllaaj amul yor béjjën amul dara tubaab xamul loolu non yooyu sax ay xarfa xuufa waa loolu dafa rafet mais dafa rafet loolu dafa rafet aada la dafay taara làmb mais di jam say bopp yooyu da c'est di jam say bopp c'est dangereux baaxul di jam say bopp yore xabtal ma am naa benn mbër boo xam dama dem këram di ko jëli làmb billaay boo yaa ma baay boo yaa ngi nii duñ ma bàyyi ma tiin booy bi Lac la tudd Lac Rose sama mbër la woon ba damay wax si tur bi booy bi ba mu yoree béjjin ba xaptalu ba yaayam ñaanal ko ba ñu takkal ko teere man béjjin bi fii la ma romb fii sama bët la naroon dugg boo yaa ngi nii duñ ma bàyyi ma fen dafa dem làmb ji dañ ko daan si ay seconde jël bu rëy sama bët la na dóor na ma sax man ku ndax xaptal yooyu yooyu mooy yan sa entraîneur di la jël si ngay yor ay béjjin di xaptalu di wañaaru fu ne nga yuuxu fa fu ne yooyu mooy lan da ngay gàncax ba war na nga rey sa entraîneur war na nga ña nga àndal. léegi looy wax ay baal ma sëriñ bee ma xabtal. est du jar entraîneur yi ak conseiller mbër yi mbër mu ci yorati béjjën wala yu demee noonu nga récupérer ko bàyyi ba mu dem làmb ja nga jox ko ko mais boo ko joxee tamit est-ce que du wóor mu jam ko adversaire am wala ñu ko jege wala yu demee noonu ndax lii leçon la boo xamante ne làmb war nañ ko mën a tiire. voilà loolu CNG moo su war a jël responsabilité am da ngay ay làmb yoo xam da ngay ñoo xam dañuy yor gànnaay jam paaka wala yor ay bégu naaw-naaw wala yor ay béjjën. loolu moo yenul maanaa nit da nga war booy dem pour sport lan la fair play nañu waxoon de dëgg mais boo demee ba yor loo xamante ni yaa ngi xalaat ni ku la nga jam ko mais naroo baax da am yéene bu rafet booy dem làmb bul yor dara amal yéene bu rafet nga dem si làmb ji yàlla moo lay suturaal amal yéene bu rafet premier da koy njëkkee si yow sa bopp mais yor arme yor béjjin yooyu yëpp dafa wóorul. sëriñ si nañu bàyyi mbër yi ñuy jox ay béjjit naa leen ay ay gàllaaj la béjjit yi nañ ko def si ay mbuus sax ñu téye mbuus bi wala ñu def ko si balu tenks mais béjjit arme la CNG dafa war a jël responsabilité am si yooyu béjjit warutul dugg si làmb ji wóorul béjjit ak bégu naaw naaw yooyu yëpp wóorul CNG dafa war a jël responsabilité am si yooyu wóorul waaw làmb ji nag juguñ si lu dul defar ko bu ñu waxee nag loo xamante ni nag wax dëgg yàlla. dafa ñaaw wala ñoom ñu gis si boppam nañ nañ ñu jéggal dañuy dañ leen njabootee ñoom ñëpp la ma koy wax bu doon sama écrit tamit man loolu laa leen di wax ñoom ñëpp laay wax nañu tegu si yoon discipline parce que la ko gaañ noonu métti nañ suñu biir xol parce que blessure bi métti na waaw bu ko gaañoon beneen xale tamit ñun waa axlu làmb ñun la ñuy sikkar rek naan mbër ma rey na benn xale yi làmbaay yàquwaat rek ñu xool ni làmb dafa bari ay noon ñi nga xam dañu nekk si làmb bëgguñu làmb lu dul yàqu la dal sa football ba bu daloon làmb heure bi làmb tëj nañ ko la dal si football ba ba ñu dee bu daloon si làmb benn nit tey làmb tëj nañ ko kon booy mbëri nañu xam li ñuy def yeewu xam ni dañoo jug si làmb pour teral seen waajur nañu am na nañu yaru nañu xool lañuy daf bu leen sëriñ joxe loo xam nga ci benn sëriñ day ñëw ne benn mbër day bëre sëriñ bi jox ko ne ko jox ko sa entraîneur fexe euh, mu laalal ko mbër mi mais sëriñ boobu nangul jàmm ñu ne muy tuur mbër ma loo xamante ni euh, tooñ la mbëri il faut ñuy yeewu lu leen sëriñ jox na leen tuur leen ko seen adversaire nga ne ko du ma ko tuur du ma tooñ yàlla bëggul kuy tooñ nañu yeewu mbëri nañu yeewu yàlla bëggul kuy tooñ du ma la jox gàllaat ne la tuur ko sa entre ah, ah, sa adversaire pour lan nga ko koy tuur sànni ko si kaw sax mu jël ko waaye tuur ko ko loolu tooñ la tooñ la mbari il faut ñu yeewu. jërëjëf jërëjëf coach dégg ngeen li mu wax Modou Diop maa maa lay fay. Euh, noo gisee li dal ki nga xamante ne mooy Cheikh Super Jamono te Mory nekk seen seen doom seen jarbaat seen lépp ci làmb mu ngeen gisee. waaw di ko ñaawlu ndax làmb li may waxal saa su ne ku ne xam na làmb am am dafa am yu mu baaxoo xam nañ nga yor béjjén kóoba nga xam yaa xam nga yor béjjén nag mais begu naaw naaw mënu ma mbër bu ko yor jug ngir da ngay bëre ji dama am na mbër ma jiitu may cité seen tur si yàq seen làmb loolu ci la bokk Balla Gaye mi nga xam ne mooy seen champion ñoom du seen idole loolu dal na ko si contre Mbaye Diouf mi bëri ak Mbaye Diouf begu naaw naaw la yoroon da ko jamaate Changrane Papa Sow dama naan bu mu fa génnee dañ dañ dañ ko jam benn booy bu ñu doon wax MC Linda bu newoon fast ndoom si yàlla gaañu na yàlla ko yàlla yërëm mbër moo baaxewul yor begu naaw naaw mbër xam na nga yor béjjéenu kóoba xam na nga mais begu naaw naaw mbër boo gis mu yor ko jugul pour bëree nañu waxante dëgg ba ci Jarko buy bëri ak Pam Morlo Mbappa begu naaw naaw la génnee yàq làmbu ña begu naaw naaw bokkul ci mbër dañu wax ne dëgg mbër xam nañ nga ñu xaptal la façon xaptal bu ne mais yow sa béjjéenu kóobal yow say gauche droite sànni fu la neex mais paa nga yor béjj naaw naa di jam sa bopp. Cheikh loolu mu def noonu tegu ko fenn du ci bokkul ci bëri ay ay encadrement dañ ko wax dëgg mbër dafa am la war a yor làmb ji nag am na loo xam ne da koy yàq barki démo ñaar làmb bi am eh, Ibamar am na benn booy boo xam ne gunge la def gunge mais beneen mbër bi mu sëggee di def ay bagage am bant bi mu yoroon la ko jam. te Imam Souare bant bi su nekkoon dogoon naaw naaw da koy rey laa mujj doo àgg mbërëm la mujj daan le tooy façon yan façon la lamb dafa nekk loo xam ne da nga war a ñëw pour wane li nga liggéey da nga dem entraîné ànd ak say morom contact du def na def nga li nga war a def ñëw nga tari mais nga ñëw di ay dogu naaw naaw di jamaate wala nga ñëw di xëppaat ay gala loolu du lamb nañ jël lamb def ko métier noble ñoom ñoo ko jël seen métier lañ ko opté nañ ko rafetal ñoom mbëri bokk ndey bokk baay bu ñu dee si lamb rayante bu ñu paree pare nañ bu jeexee jeex na mais loolu mu def noonu tegu ko fenn respecté wul ay encadrement am respecté wul kenn ko xam ne ko jege la man dama koy wax mu dégg xam na moom bu baax la mu woon def defu na avance jàmbur entraîné na le jour si jot na ñëw wane lim entraîné même buy daanu mu daanu dem ñibbi même leelu si xew mu xew mais kantaa lim def moom man rafetlu lu ma ko. Sénégalais moo baaxoo lu xew rek ñu naan ndogalu yàlla waaye ndogal tamit na ci fekk loxol borom. ndogal boo gis am na tànk borom. Hmm. yow bi nga ñëw fii sa moto nga dawal. Hmm. boo toogoon sa kër mbër bi dina fekk. mais danga nga dawal sa moto jéem ñëw moo tax nga ñëw parcelle. kon mbëri nañu bàyyi loolu ay ndogalu yàlla ndogalu yàlla ndogal bu ngi tàn tànk borom ma nga sa dagoon naaw naaw la mbër wërta yor bu bëggee dégg dëgg béjjënu kóoba mi ngi fi béjjënu leneen ak leneen mais naaw naaw du arme la naaw naaw arme la cat bi foo ko jam day dugg mais lu pourquoi mu koy ŋàbb lan la kon doyee ak ban sëñ moo ko digal loolu du làmb fekkee ne da ñëw pour entraîner si biir mu xam ne làmb ji dafa nar a yàqu mais na ñëw mën na mën nañu ba si biir tous dem bëre daf li nga fulaak fayra bu ñu koy daan xam ne daan nañ ko loolu yàgg na si mbër nga dem ba si ba si làmb wa nit ñi la nit ñi dagg seen billet ba seen yitte ba seen lépp ngir lan grand combat bi amul loolu day yàq làmb bari na ci mbëru làmb yoo xamante dañuy dajeeg seen adversaire ci digg géew bi sotti ko saafara wala ñu sotti ko loo xamante ni ay lu mel ni saw wala ñu sotti ko loo xam ne bokkul ci làmb te arbitre bi day avertir adversaire am rek est que loolu jarul CNG bi jël ci seen matuwaay wala ay sanction yoo xam ne dañ koy tegal la xeetu ragal la mbër li koy yàq mbër du ko yor man tey su ma yoon bi mu leer ma su ma ko nga yàq du ma ko yor man mbër mbër mbër dafa am xam ne nii euh, dañuy dox sa sa xel mais mbër du yàq lu yor lu yàq mbër kon moom mi ko yor lay yàq avant muy àgg si mbër bi am na yoo xam ne du CNG du ko liggéey ñoom ñoo ko liggéey ñoom dañ ñëwee boo xoolee ay lamb yu bari comme guy gi guy gi Zarko mais Zarko am na lu mu def guy gi dafa ñëw sëq lim ko def raay ko daan guy gi moo daan Zarko euh, euh, wuli wuli waat moog Tidiane Faye nu mu demee tuuru ay bagages ku daan Tidiane Faye moo daan am loo xam ne koy dox sa maayin yow yaay bañ yow ñëw am am nga cadré wu xam nga mbër nga war mooy lan mooy xam ne bis indi nga si bis bu concentré wu gis nga mbër yu bari ñuy seen làmb si cumikaay bi la yàqoo benn la toog na le du ma mële estafam dañ koy bàyyi day fecce fecce fecce ba mel Papa Ndiaye ji euh, coppet wala Papa Ndiaye ciw mbër loolu mbër boo xasee tuuti rek concentré wu sa làmb bu say euh, supporter di xeex sa yoon nekku si say àndandoo bu ñu xeex sa yoon néewu si leer na sax booy dox sax ba ba sa adversaire kar la sax mu leen xeex la indi gars yi daw nañ ànd sonk wala retourné waat ñoo ñëw sa ñëw ci mu gaa toog concentré wu sa làmb mais mbër yi lu bari ñoom ñoo koy provoqué ñoom mbër dina dina dana daanu avant làmbam bokk na ci li daal Siteu bi muy bëre guy gi bañ toj boppam ci stade boobu stade Léopold Sédar Senghor. waaw yooyu yooyu ba tey mën naa sax problème mu Siteu problème mu supporter la ndax Siteu bi muy dem di jéem a calmer supporter yi su fekkoon ne am na en euh, Max Mbergane euh, xawoon na xalaat loolu moom na ko woo mu ñëw pas si dem di calmer. mais moom mu dem calmer mu dem calmer wala ñoom ay ñoom nees. yàlla ñoom ay maama Lamine dem calmer ñoom ñëpp même même même tar ki ndaw bi la mais du woon Siteu moo jóg am na loo mbër du ko réglé. mbër soo génnee sa kër ñëw si làmbu da war a régler sa làmbu xam nga loolu la ngay xaar at bi soufflé mais xoolal li ma la wax bàyyil xel mbër boo gis muy régler problème si làmbu day ñibbee defet la ñibbee mbër du régler problème dañ koy régleel bu gaañee woo nga dugg sa biir cumikaay mais mbër bi mooy ñëw xeex benn si benn booy la bu dëkk parcelle dafa mbër muy bëri ak Mame Balla dafa damm amal làmb bi Mame Balla moo la dugg si biir surface mu xeex ak moom dóor ko si bopp bi loxo bi damm te da ko bëriwaal daanu te su doon ay gaañ rek la est-ce que dina damm lu damm faw ñu am am am kii boobu noonu di cadre seen bopp ba su ma ñëwee yow yaa ma nekkal fii yaa ma teel yaa ma teel damay toog mais Yékini lu ko def champion la moo def champion entourage bi ñu ngi si biir lay na toog su gars yi dawee mu ñëw toog si biir uuf si kaw Mansoor lan la loolu si gis champion la koy def mais mbër du mooy lépp mbër soo entraîné ba le da ngay ñëw nga toog teey di sa coach tey bi mooy lagg ñëw toog lagg ñëw toog boo leen kii dafay xeex nga ñëw toog si biir cumikaay loolu fekk. mais mbër ya gis yëpp ñu la problème yooyu foofu la ñuy mujjee en tout cas l'essentiel mooy làmb ji ñoom nañ ko defar xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu ñu dajee si mbedd ñoom ñooy am na béjjënu leneen leen am na nañ ko yor xabtal la mooy xabtal yaay xabtal sa bopp am na wax gaa ñoo koy am yenn ñu ciy boole sëñ bi bu la am yenn boole wut bant tux ba ne kërën kërën yaa indi say xabtalu bopp dañuy wax dëgg am na mbir yoo xam dañuy mos seen yow dañ ci jóg am mbir yoo xam dañuy tux def dugg ci làmb ji xamu jànj ak joor leen neex yëpp seen da ci war a jóg commencé woon nañ ko nañ ko dañ commencé woon nañ ko fi dafa dopasse mais arrêté waan mais yu ndaw yi bëri bëri combat yu ndaw yi xaaj bi yëpp war nañ leen di xool balaa ñoo bëri ndax li ñu nekk tey ñu ko loolu moom bay ma ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nag di jégalu nag si paral bi di jégalu bu baax a baax waaw di xam ne ay xale lañ muy Mody di Agogo di kenn ñoom champion bi toog yëpp làmb lañ opté neen yàlla yàlla defal liñ ci bëgg mu raw seen njort te ñu respecté seen entraînement respecté seen coach respecté seen biir ñoom respecté seen biir te ñu bàyyi diwoo ma yàqal. man bëgguma loolu nit ànd ak Mori tey ak Agogo suba Agogo daanu ñuy noo Mori moo ko yàqal wala Agogo moo yàqal Mori te ñu bokk benn écurie man gëwuma loolu yàlla mooy maye ndam mooy xañe ndam mais nag am nañ am fulla ak fayda ak jom ñu da nga am fulla fayda jom leen lu sa fekk ñu xam ne fekk nalas mbër yàgg naa bëre daan ñu tàcc ko mu a ñibbi mais nag ñëw si làmb ja buñ ne woo oh nga nga nga jàpp sa ndigg wala nga daw génn fi ñu daal la ngay diwoo ma suwal lii diwoo ma waxal lee man d'accord ma si loolu loolu du sport sport dafa fiir nañu entraîné dem si di contact di contact di boole te sëriñ bi 100 pour cent mbër bi sëriñ bi du si dara tuuti la si day compléter ay musluwaay la ay mais li am solo mooy physique bi doole ba pare mën a bëre loolu mooy mooy dooleel mbër mais si sëriñ bi da lay saxaar lay lekk rek ko ne mbë sëriñ yi daan mbër kon paa yi duñ bàyyi bëre kon paa ñooy ñëw si làmb ji ngemb ay ñoom mbéy ñoo ji di bëre ba léegi mais xale mooy bëre fulla fayda jom entraîné taxaw wow yooyu man keroog jour bi ma ñëwee xool ko mu sumee ko kee man nekk la ma ne ko booy bi tey taxaw na pour pour bëre ndax li mu liggéey nga xam ne kii taxaw na pour bëre xëy na yàlla moo dogalee noonu Cheikh am gàllankoor mais nag nañ nañu waxaat ak ak Cheikh ne ko mbër du yor beegu naaw man su ma ko gisee sax nii sax dama koy wax xam na ma ba baax mbër du yor beegu naaw naaw mbër man am na droit yor béy génn kóobay dox ak moom def seen i xorom xoma seen i bagage suy rendi sa bopp mais béy génn beegu naaw naaw moom mbër bu nga yor man déggalu ma ko mbër waaw jërëjëf jërëjëf. laa jaw maa lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di leen rafetlu seen teewaay tey fii ci Parcelles Assainies waaw di nuyu di nuyu waa kër gi ñu fi fekk di nuyu suñu grand magum di nuyu champion yi ñu fi fekk yëpp waaw di rafetlu jotaay bu baax. ku ne gis na ne tey ikiri sab xam-xam ak ikiri Gandiol ñoo fi bokk daje ngir bisu magum mbay bi kon ñu ngi sant bu baax a baax di rafet lu jotaay bi di nuyu champion fi nekk tamit nga xam ne yàlla dogal na am combat ku ci mel ni Agogo étoile Jolof ak Thiat ak champion fi toog yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafetlu jotaay bu baax baax a baax. keroog ngeen indi ak euh, mu ñëw ci làmb ja am la ca dafa mel ni daa am lu ci metti waaw ginnaaw bi ñu santee bu baax rek di wax ne làmb nii lay tëddee quoi ndax victoire noo ko amee rek victoire la. parce que dañu déglu ñaari version yëpp déglu Cheikh déglu président écrit bi mais kilifa dafa am nu muy waxee parce que yàlla dénkoon na ki nga xam ne moo yoroon écrit bi di Mor Fadam yàlla dogaloon mu am image bu mu wanee ci làmb ñu xam ko ci yar ak teggin jullite uuf njabootam uuf écrit bi kenn musu leen dégg ci dara kon bu ñu xoolee ci moom rek li am bërki démb kon war woon mën a am dégg naa bu baax lu mu wax wax na qualité mbërëm wax ci moom ay fooram ak lépp mais ñun Mori Cargo xam nañ ko depuis bu muy nekk ci keppaaru Birame Ndiaye di topp mbër yi nekk fak ñoom Pape Morlo kon loolu du tey dafa tarbiwu làmb xam naa nag ñoom dañ ko réeree mbir xamuñu ko xamuñu kan mooy Mori Cargo mais ñun xam nañ kan mooy Mori li ma lay wax nii waxuma ko ngir lim toog mu ngi nii du bàyyi ma fen trois jours avant combat bi dafa am problème mu sévi man ne ko damay woo ménagère bi ñu annulé combat bi mu ngi nii su dul dëgg na ko wax. ñu gëm suñu bopp mu woo ma ne ma nañ bëre parce que làmb ji am na lu mu laaj kenn xamu ko ku dul man ak moom kese keroog bi muy def open press am li ñibbi si dafa doon soox di dugg si biir këram. ma ne ko mbër dañuy annulé combat bi mu ne ma dañuy bëre kon bu yàlla dogalee moom mu wax bañ dem ci làmb ji mu mu yóbbaale ak blessure kon moom jom moo tax mu duggee ci làmb ji ak blessure pour sauver journée bi. kon Cheikh tamit li mu def du loo xamante ni staffam ak endroit am war nañ ko ci encourager parce que lamb bis la te bis bi promoteur bi daf ko jaral jël xaalisam def ci ñu koy wàcc moom mu ngi wax moom moo njëkk a jël combat bi ñoom bi ñuy déclarer combat bi ñun ñoom pare nañ ko lu yàgg ñu soog ñu jox combat bi kon ñoom ñoo njëkk a pare pourquoi ñun ñoom ñu njëkk ñu yëg combat bi mu demee nii kon nañ xoolaat ñoom seen mbër kii tey jii may wax ak yow. waxtu bu bii bu paree day teg day simeeku dem entraîner parce que ay rakam dañu am combat ñun liggéey lañ xam fii boo xoolee fii ay xale rek ñoo fi nekk liggéey lañ xam champion ay ay tout ñoo fi nekk entraîner rek lañ xam. mais président équipe bi ma yaakaar waxul dara loo xamante ne garaaw na wala lan la fa wax lu la metti yow. waa daf ne bu ñu xooloon Mori Cargo wax suuf Cheikh Super Jamono Cheikh Super Jamono la ñuy xam du loolu la wax bu ñu demoon Ibamar ñu toog ci kaw tribune bi ma toog mu toog ak Mori la ñuy amateurs yi Mori la ñuy xam Cheikh mënoo ko gis bu romboon fii boo ne woon kan mooy xamuñu ko seex ñëw na fii si koñ bi jaabante na fii bu doon siiw na sama waa koñ xam nañ ko bu yàgg Cheikh bu bëggoon mu fanaan si buntu kër gi moomuñu bis boobu nañ ko gëm te xam ko gis combat boobu da koy daan loolu laa bëgg ñu gëm ko ñoom. ci lépp moo ko doole. xam-xamu bëre bi. moo ko moo xam-xam la nekk. ba tey day sàkku xam-xam. ñëw bu dégg combat bu ñu jël ba jegeeg père Ndiaye suñu xel day dal kooku moom maa la ko wax tey parce que làmb ji dafa am lu mu laaj moom booy bi ngi ci dafa tarbiyu làmb nekk ci làmb bëre nekk ci yaram bi ñoom dañ ko jël te xamuñu ko amaana moom li muy wax nekkul ci moom ñun dafa am luñ doon luñ doon luñ doon réparé ci journée bi parce que dañ ñëw keroog ñu ak njaga mu am nu mu demee ñun ay xale lañ duñ yàq làmb quoi xam nga. ñëw nañ keroog combat ñu nag njaga am nu mu demee ñu woo ménagère bi maa ngi koy nuyu bu baax Pape Diagne Seras ñu xamal ko ne làmb daf ñuy jaral quoi am na bëri ñun dootuñ ci nekk di ci di ci discuter wala di ci coow suñu ñëwee bis bi lu mu laaj loolu la ñuy def en tout cas li ma mën a wax foofu daal ba wax ko mooy ñoom ñu ngi si seen ñu ngi si seen euh, blessure mbër ñu ngi leen di ñaanal seen carrière làmb ñu yàlla may leen ñu am beneen combat yàlla defal leen ci ndam mais combat Mory Cargo ak Cheikh Super Jamono moom paas nañ ko suñu ginnaaw quoi. ñu nekkul suñ kanam bu jële jëlee combat boobu daa am lu doon defar lu ñu doon wan gars yi te yàlla lii la dogal kon dañ koy sant yàlla adversaire yi suñ kanam yéen ci làmb ñu ngi ci làmb ji suñu adversaire ñu ngi ci kanam mais nekkul Cheikh Super Diamono coach bi nag maa ngi koy yóbbante di ko wax ne mbërëm la xam moo tax mu waxee noonu mais loolu mu wax du du du róoru kilifa daal waaw na xool ci bu baax yor écrit bi moor Faram yàlla na ko yara xaar ajana mu mu am mu copier ci moom. mu réparé waxam buy waxati mu xool ko parce que bul bul far bul fal bul fal sa sa sa mbër di fa di folli mbëru jàmbur ñun Mori Cargo lañu moom dañ dama bëgg mu xam ne ci blessure la bëre waale kon borom jom moo mel moom moom moom loolu quoi waaw loolu rek laa doon koy yóbbante di di di ko jégalu di masawu seex bu baax a baax a baax aussi parce que keroog bu fàttalikoo jour signature contrat bi bi mu naan rang muy gaaw ñu ne ko moomoo ko booy bi ne ko day gën a gaaw wax bi moo nekk lii. amaana da ko cax ta xamu ko waaw da ko cax ta xamu ko def nañ la tout nag biñ dugg see ci làmb ji ñu bugg ko yàq loolu baaxul ñëw na ñi ñuy provoqué waa CNG ñëw xamal ma ne combat bi du am may leen ñun ci contrat lañ nekk manager bi moo mën a ñëw wax ma ne combat bi du am moo tax ma ne booy bi mu bàyyi bu dul loolu booy bi da nekk ba keroog ñu yëkkati loxoom. Mori ñëw ma ne ko lagal bul jege bu leen jege lagal fii ci cumukaay bi bul sori mu respecté ñu déggal ñu te loolu la jëfee ba jàmm am ci te amaana tey bu ñu leen toppoon ci seen rythme kon dañuy dañuy gaañante foofu wala ñu yoxasu ko ñu ne combat bi yàqu na mais sa combat boo ko yàqee bul yàq bul bul bul tuumaal mbër mi ci des yow yaa yàq sa lamb fexeel sa lamb ji nga yàq nga xool noo ko réparé mais provoqué yi ñu leen doon def lépp ñëpp teg seen bët aussi loolu nekkul lu ñu lu su amee entourage bu ëllëgee seex bu ñëwatee ci làmb nañ koy xamal naka la ak nan la moo gën ñu bàyyi ko muy provoqué parce que géew ko moom dañoo dugg ci géew bi ñu attaqué ñu coow fekk ñun yëg nañ ne blessé na bu yàgg ma xëcc mbër mi ne ko kaay dem ci cumukaay loolu yëpp day lu yàq làmb la kon donc ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal champion yi fi am combat yëpp ku mel ni Agogo ak Étoile Jolof yàlla defal leen ndam lu sedd guy suba caatu piol bi la 12 incha allah rabi ñu gunge ko yàlla suñu morom defal ko ndam eh, parce que ñoom làmb ji saison bi ñu nekk nii dañ taxaw pour am luñ bëgg a wane te incha allah rabi yàlla dinañ si jàppale bu baax a baax a baax a baax di nuyu Ousmane dafa amoon combat yàlla suñu borom dogal mu am tolof tolof ak ñëpp ñi nga xam ne amuñ combat ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom defal leen combat ñu génn ci ci jaam ak salaam di rafetlu jotaay bu baax a baax di leen gërëm di leen sant yéen aussi parce que li ngeen def nii aussi lu rëy la ndax yéen a ngi jàppale mbëri bu baax parce que xel day dal combat le premier tan combat yu mag la daan don tey bu ñu demee ba espoir du ko bëre kon loolu dañuy sant yàlla ko kon di wax ne làmb ji day mujj rek mais ci xale yi lay nekk daal kon loolu tamit lu rafet la ñu ngi leen di sant di gërëm jégalu ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la mbokki Mory Cargo wax ci làmb ji waaye sëñ Bas hey suba hey suba agogo ak Thielé stade Diop Iba Mar ku ko rate hey gisuma la mbaaw mbokk noon noonu laa leen tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg allah ci wasaare làmb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf.